leen jaajafal bu baax yéen suñu internet leen nuyu te am contentement janoog yéen chaque jour nee naa leen mbégte bi moo leen indil li gën a fës ci bopp xibaaru làmb ci noonu nag damay jël nuyoo bi jiital ci borom kër gi di Pape Thialis Faye di ko nuyu di ko ñaanal jàmm ju bari bari moom ak ñi mu àndal ci noonu damay nuyu ñi ma feggool assan Wall ak Mbaye Babacar ñi daal di àndandoo jukkil leen li gën a fës Mbaye nuyu naa la jërëjëf Ndeye Mbacke ñi ngi lay fay di nuyu bu baax suñu xarit yëpp yi nga xamante ne bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam di leen ñaanal weeru kooru jàmm seen mbégte mooy suñu contentement heure bu ñu toogee fii. Assane Waalo nuyu naa la. nee fay naa la di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaat mbégte jàkkaarloo ñoom pour indi leen di gën a fës ci yéen mardi 3 mai 2021 Leewtoo point net la ñuy doore ak xibaaru làmb lam ca xam ne nag mooy kii di caat bu booy a daal dinay dellusiwaat suñu réew démb mbay Babacar caat jóge na États-Unis d'Amérique gannaaw ba mu fa defee juróom benn weer di waajal kombaam ak ki nga xam ne moom mooy mujja bu yoof di combat bi nga xam ne combat bu nar a neex la incha allah asan mu mel ni caat fi mu toll nii pare na ci côté yëpp ndax gannaaw ba mu jógee États-Unis ñëw na Sénégal dem. dëgg la Mbaye Babacar mois de novembre la fa demoon toog fa ba mois de mai bu doog ñëw def na fa six mois donc Thiam nag ñëw na démb vers ay sept heures la agsi ñëwee nag euh, nee na euh, jàll euh, wax na ak Leewtoo point net. nee nag li mu fa doon liggéey lépp am na ko travaillé na fa endurance ak puissance boxe lépp def na ko fa nee na nag jox na ay kàddu mujj nee na na Modja xam ne moom jëlul combat bi pour daal ba kanam la ci teg te le jour ji victoire lay dem pour jëli ko ëndaale nag ëndaale na nag ak benn lug bu bees lug bi nag nu ko tuddee mooy cinquante cinquante tolloo tolloo. <laughs> waaw mooy ni mu ni mu watee bopp bi mu ngi noonu loolu Leewtoo point net moo ñu ko xa moo ñu ko xibaar ci noonu nag ba léegi Leewtoo point net la ñuy desante ak xibaaru làmb mag ñuy xamal kee di franc ba nekk parcelle mbooloo ñu tudd duppeeku li nga xam te ne mooy suñu euh, njaago or bi mu nga doon def ndogu yu am solo fee ca unité neuf daal dinay xëy ay don ci ba ca ngoon nga mu def ay ndogu mbay Babacar muy geste bu noble ba nga xamante ne bi macha allah moom franc dañ koy saluer bu baax a baax a baax a baax ndax ku ne xam ne ne moom du jullit chrétien la wante Sénégal euh, li naan Euh, ñaari ñaari diine yi ñoom ñaar ay dañoo déggoo loolu la loolu la Franc di dëggal ba tax na moom seen weeru koor bi mu jàllee suñu weeru koor daal di sampu mu daal di defar ay ndogu asan ngir jox ko mbokk jullit yi jàppale leen ci weeru sell wi di weeru koor. dëgg la Baye Babacar dundin bu neex entre chrétien ak musulman réalité la ci biir Sénégal mm-hmm. loolu tax démb Franc def ndogu euh, jagleel ko ñi nga xam ne nii ñoom ñooy musulman yu wóoroon yi moom nag chrétien la matinal bi dafa dem ci église bi def ay don ngoon bi mu dem euh, koñam euh, muy unité neuf. dafa benn ndogu boo xam ne nii neex na bëri na euh, woon nit ñi ñu ñëw lekk ba suur dem ñaanal ñëpp mu nekk geste boo xam ne nii geste bu nice entre musulmans yi ak yi fii ci Sénégal. Mm. macha allah ndogu bi riche na champion yi nekkoon parcelle ñëpp teewoon nañ fa Mbaye Babacar. waaw nekkoon lu rafet. waaw cest loolu mooy wone que Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. dal na jàmm yàgg. muy noonu journal suñu làmb lañ jëm na ba mu xëyee ci xëtam mu njëkk lam cay xamal nag mu ne contre Bombardier un combat piège pour Balla Gaye numéro 2 moom moomu di suñu papa Moustapha Guèye nag mu ngay xamal Balla Gaye ne kii di Bombardier kenn waru ko sous-estimer da daal di jàll ci ki nga xamante ne mooy Tapha Tine ne ko nag combat bi mu jëm contre Boy Niang dafa war a daan pour imposer wu parmi les VIP Mbaye Babacar. Euh, Tafa Guèye moo yëkkate yooyu la kàddu ci journal suñu làmb nee na combat bii di dox ci diggante Bombardier ak euh, Balla Gaye nee na piège la ci Balla Gaye maanaam ndëgg sërëx la ci ki nga xamante ne bii mooy Balla Gaye loolu waxi Tafa Gaye la wante yemul foofu nee na su bëggee des ci li nga xamante ne bii moom mooy VIP yi il faut mu jéem a jàmmarloo ak kii di nga xamante ne moom mooy Boy Niang daan ko wante Tapha Gueye foofu ba léegi nee na Tapha Tine mbër la ma nga xam ne ñépp xam nañ ko ci xeex mbër la ma nga xamante ne bii ñépp xam nañ ko ci corps comme li ko daloon ci digganteem ak Ama Baldé jàkkaarloog Ama Baldé di di di xel yaar ndax daa war a xeex ak moom waru koo dal ci digganteem ak Boy Niang bu jàkkaarloog Boy ñaar rek kurfeñe daa war a mel ni péricurus tacc tacc ga daa war a tàkkarnaase dëgg la Mbaye Babacar Tapha Gueye moom moo yëg ci biir suñu làmb dafa am seqal suñu làmb waxtaan bi yaatu yaatu noonu li mu fa wax nag mooy combat bi war a dox ci diggante Bombardier ak Balla Gaye 2 nee na Bombardier mbër la moo xam ne nii mbër mu dul sous-estimé la te pièce la ci contre Balla Gaye mi nga xam ne ni dafa am ñaari combat combat am contre Bombardier combat am contre Boy Niang na nag bi euh, pièce la ndax ko daane woon seen premier affrontement mi ngi xewoon le 20 juin 2014 Bombardier daane ko euh, loolu nag moo tax mu ne bi daal pièce la ci Balla Gaye wax na également comme ni nga ko waxee ci Tapha Tine lu war a jàkkaarloo ak Boy Niang 2 nee na combat boobu Tapha Tine li ko ci war moom mooy dafa war a ñëw xeex ndax loolu mooy mëninam nee na bu ragalee eh, xeex wala muy am xel ñaar bi booy ñaar rek mën na fausser eh, ay stratégie am lu ko war le jour ci mooy mu xeex Boy Niang pour mu mën ci am loolu. ca noonu nag combat royal du 25 décembre contre Modou Lo Ama Baldé va-t-il éviter le syndrome de Tyson ginnaaw 25 décembre boobu nag kii di Mouhamed ndaw Tyson Bombardier moo nangu woon couronne bi ci loxoom lay loolu la ñuy naan ndax Ama Baldé dina moytu loolu Mbaye Babacar. comme ñoom ñaar ñoo bokk dëkk Pikine muy Mohamed Ndao Tyson ak ki nga xamante ne bii mooy Ama Baldé tey suñu làmb dafa ne amaa war naa moytu li daloon magam jooju di Tyson dal ko ndax vingt 25 décembre la bëre woon ak Bombardier Bombardier daan ko Ama Baldé war a bëre ak Modou Lo le 25 décembre moo tax suñu làmb ñëw di ko avertir na ko bàyyil xel bu baax a baax ci li daloon sama ak dëgg la Baye Babacar benn interrogation le journal suñu lamb xëy samp ci diggante combat bi nga xam ne nii war na ci diggante Modou Lo ak euh, Ama Baldé nee na nag Ama ndax du def va-t-il éviter le syndrome ndax Tyson euh, Bombardier daf ko daane woon le 25 décembre 2002 euh, jël couronne bi loolu comme Tyson Pikine la dëkk Ama Baldé Pikine la dëkk war a jàkkaarloog Modou Lo le 25 décembre bii di ñëw loolu moo tax journal suñu lamb posé dafa tegle cinq défaites euh, ak benn victoire ba pare doog a jeexal carrière am na nag def na saison quatre saison blanche ak euh, deux suspensions te loolu lépp euh, ci après vingt cinq décembre boobu dafa am donc daal nee na Ama Baldé ndax dina éviter syndrome bu Tyson boobu. te noonu nag Boy Niang numéro 2 contre Tapha Tine et Balla Gaye numéro 2 soit sportif wala business la muy xëy di samp laaj na moom suñu làmb nee na. ginnaaw ba mu jëlee ñaari avance da teg ci titre wala da koo teg li nga xam ne mooy financier Mbaye suñu làmb moo xëy samp laaj na Boy Niang ku ne xam na ne mu ngi ci ñaari contrat digganteem ak ki nga xamante ne mooy Tapha wante gaynde gën a nekk géej waaye mi ngi koy xaar tamit ci beneen combat ñu naan ko Balla Gaye suñu làmb nag xëy samp laaj mun a Boy Niang li tax mu jël ñaari contrat yi euh, carrière am moom moo carrière sportive moom moo tax wala. xaalis moom moo tax mu jël ñaari contrat yi Assane. dëgg la Mbaye Babacar journal suñu laa mën a def interrogation boobu moom nee na Boy Niang 2 contre Tapha Tine et sportif ou financier. bi mu posé woo fa rek dafa jox kàddu Bécaye Mbaye mi nga xam ne nii xam nañ ko ci laam pour mu répondre ci question boobu Bécaye li nga wax nee ne mm, ñaari soit euh, sportif wala financier mënuñ ko dissocier ci mu ndax benn mënul dem bàyyi moroomam nee boo Boy Niang 2 euh, combat bi dina ci am xaalis waaye également dina ko permettre mu jege titre roi des arènes tey ñëpp xam na ni loolu ko mooy euh, soxlaam instant bi donc daal nee ne xaalis bi dina am waaye également bi sport technique ci carrière bi moom dina ko arranger trop ci combat bi. maanaam mhm. combat bi gagnant gagnant mënu cee perte benn foog moom ci benn asan. non dina ci am ñaar yëpp Bouga bu dee victoire la la ci jëlee dina ci am xaalis mais également dina ci en carrière am dina ko dina ko permettre mu rapproché wu comme ko Biraye waxee ci titre roi des arènes. moo ngi doon nag ginnaaw bañ koo sam bañ ko tabbee troisième tigre de Fass kii di Gris Bordeaux dafa journal bi xamoon na mooy Gris Bordeaux peine à allumer le flambeau mu mel ni bañ ko tabbee ba léegi Mbaye Babacar Gris Bordeaux yéegul wàccul. ci fukki at ak benn la tollu Ndeye Bakke Gris Bordeaux ba mu nekkee troisième tigre de Fass ba léegi ku ne xam ne ne depuis 2010 ba léegi moom la ñu teg ci bopp boo bopp écrit boobu ñuy wax écrit fas te léegi ñu ànd ak écrit Ndakaaru ñu tuddee ko fas Ndakaaru suñu làmb nag nee na Gris Bordeaux depuis ñu teg ko ci bopp écrit boobu ba léegi liñ doon xaar ci moom gisuñu ci lenn ci moom. dëgg la Mbaye Babacar euh, ñu ngi ko teg ci bopp Fass mu remplacé Moustapha Gueye donc nekk troisième tigre de Fass ginnaaw Tafa Gueye nekk ko jiri donc ñëw 2010 nekk troisième tigre de Fass mais depuis lors journal euh, suñu làmb ne ne euh, Gris Bordeaux daal ay affaire am baaxul torop li nga ko daan xaare jotu ko ndax depuis boobu bëri na ci 6 combats 2 victoires la ci am Baye Mandione la fa daane le 1er janvier 2012 Tyson le am ci 4 défaites Eumeu Sène daane ko le 6 mars 2011 Modou Lô daane ko le juin mu Lo daane waat ko le 31 juillet 2016 Balla Gaye daane ko le 31 mars 2018 donc daal Gris Bordeaux depuis ba mu nekkee Tigre Fass ba léegi affaire am yi doxul comme ni nga ko doon xaar. mu def ci mu def ci ñetti année balance. année balance yi bëri waaw bëri na ñaari année balance 6 combats 2 euh, victoires 4 défaites. ca noonu nag kii di coach Jabon ci défaite bi nga xam te ne nii moom la Reug Reug am ci lam cee xam ne nag mooy kii di Reug dafa sonnoon. kii di adversaire bi moo ko sonaloon da koo épuisé mbay Babacar. coach Diabo moo yëkkati yooyu la kàddu ñëpp ràññee xam-xamam ci wàllu sport de combat nee na rëg-rëg combat bi mu doon euh, mujj a bëree boo jëlee ci li nga xamante ne bii moom mooy défaite. li waral mu ñàkk ko daf cee sonnoon te ki nga xamante ne bi moom la doon jàkkaar loolu daf koo mayul dara mayu ko fu mu yëkkee am nàkkam loolu moom moo tax mu jëlee ci defet Kirill Grishenko la doon dajal jeudi bi passé nekkoon quatrième combat am ci MMA mu mën nañ ko wax par kaw waaye moom ba mu ñëwee dafa wér wax jooju nee na amu ci defet combat bi dañ koy bëriwaat si 3 mois mais daal li ko su jabon def analyse après combat moom nee na li mu gis mooy que euh, kii di regret dafa sonnoon ci combat bi combat adversaire bi daf ko épuisé daf ko sonal ak ku yi mu ko doon jël li mu ko doon jox looloo tax euh, euh, Reug Reug sonn ba mënul euh, maintenir adversaire am boobu coach bi nee na également wàllum coach dafa baax ci combat bi di la wax nan ngay taxawee ci biir combat bi nee am na solo trop te loolu Reug daf ko manqué woon le jour ji mm-hmm. moom la na gis Serigne Ndiaye de menace da xam ne na mooy je vais pas attendre na moom xaar benn mbër da moo wax noonu moom mi nga xamante ne bii moo war a bëri ak Sococim nee na arbitre bu suulee bëggee na digganteem ak Sococim na jàpp ne lépp luy yëngu ci kaw Sococim moom la nee du ko xaar te du ko may dara. dëgg la Mbaye Babacar combat bi dafa xaw am problème tuuti ndax su ko si moo war a jàkkaarloog euh, Serigne Ndiaye 2 le 5 euh, le 5 mai la ko euh, promoteur bi prévoir promoteur bi nag moom mooy Habib Ferat. Mm. mais seulement le ko si daf ne moom parewul du ko bëre. looloo tax nag Serigne ne moom du xaar su ko si muy xaar beneen date wala muy bëgg beneen date. nan ko def le 5 mai bëri ko mu jeex nee na nag moom mi ngi ci ay promoteur mi ngi ci ginnaaw promoteur bi di ko xaar na promoteur bi def tout. tout ba ñu bëre le 5 mai nee na également mu ngi ci ay ay at ñu ngi ci ay entraînement ñu préparé te pare na pour le 5 mai mu bëre kii bi. kon daal moom moom moom le 5 mai la bëgg a jàkkaarloo kii di Sokocim. le 5 mai la bëgg jàkkaarloo Sokocim bëre ko seeti leneen euh, Sokocim nag moom nee na parewul pour le moment pour bëre le 5 mai. waaw mais ñu jàpp ne bëre moom ñaar koy def kenn kenn kenn du ko def. non je pense que ak euh, promoteur yi bu demee CNG ficelé date bi am régulariser date bi fekk si faaw mu bëri mënu ci dara. Mm. ku lekk avance faaw nga fanaan suufu pont. faaw nga bëri wasaama koy moom moomatul boppam ba mu jëlee avance nga moomatulee boppam. ca noonu nag deux galas de lutte en perspective dans la zone de centre kii di si jaxate dem na fa daal di xool bërëb ba Mbaye Babacar. Sidi Diakhaté ku ne ku nekk xam na ne promoteur ba la promoteur la ba nga xam ne Ceeskaay la dëkk macha allah di tëgg ay combat Ceeskaay nag li mu bëgg nag mooy décentraliser li nga xam ne mooy ay journée dem ci région yi rawatina région yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci zone centre bi ñoo nekk ci diggu réew mi bëgg naa tëgg ci ñaari région samedi passé Assane demoon na fële ca Kaolack ndangaan nemmee nemmeeku ji Kaolack xool naka la fay tëggee li di làmb. dëgg la mais Babacar deux galas de lutte en perspective dans la zone centre maanaam Sidi Diakhaté dafa fas yéene décentraliser ay combats mi ngi woon ci Thiès léegi dafa bëgg jógee Thiès dem Kaolack demaat yeneen région yi looloo tax euh, sa weekend bi passé mu dem Kaolack pour xool euh, stade bi ak jumtuwaay nan la ñuy demee pour que jour bu fi bëggee euh, tëggi combat du am problème loolu moo ko yóbbuwoon Thiès waaye fa demee également euh, waxaale na fa ne fas yéene na tëgg benn gala Kaffrine loolu juillet la fay am nee bu paree Kaolack kafrin la jëm le 10 juillet. ca noonu nag kii di suñu papa Birame Ngingue pas acheté par baabu ginnaaw. ba mu demee pour régulariser li nga xam ne mooy combat bi dox ci Modou Lo ak Ama ñi daal di koy gàntal loolu ca noonu kii As Cissé moo mujjee nekkaat ménager Modou Lo Mbaye Babacar. kuréel gi nga xamante ne bii ñoo lëkkale ménager yi nekk ci Sénégal ñoo ko ko lànkal. ndax nee nañ ko bokkoo ci suñu kuréel reconnaître wuñu la xàmmeewuñu la kon nag doo ñëw di signéel benn mbër ci réew mi muy Modou Lo muy ku mën di doon mënoo koo signéel loolu la ñi nga xamante ne bii ñooy association des managers bañal ñu ngi finalement ki mujjee régulariser combat boobu mooy assisé nekk ki nga xamante ne bii moom moo signé combat bi Assane. dëgg la Mbaye Babacar Birame euh, Gningue moom la Modou jox mu nekk manager am mu koy ay combat mais seulement Birame Gningue bi amagul carte pour adhérer ci euh, euh, kuréelu manager yi semaine bi passée bi ñu war a régulariser combat Modou Lo ak dafa demoon pour mais mu jaa mu daje fa ak di Abdou Baax Ba Abdou Baax mu bañ ne du signé ak moom donc du parce que amul carte. pour euh, amateur yi euh, pour manager looloo tax nag finalement ñu écarté Birame ñi ngi indi Assis Assis nag nekkoon na nekk manager u donc nekkaat na ko pour le moment jusqu'à ce que Birame di am carte d'adhésion au niveau des managers. kon mën na noo jàpp ne Assis moom moo rëdd foofu noonu ca place su Birame waaw Assis moom bokk na ci kuréelu manager yi kuréelu manager yi mu ngi tudd nag regroupement national des managers de lutte euh, du Sénégal ñu am ko RN. Euh, MLS ñoom ñoo formé foofu seen manager Babou moom moo leen jiite. Mhm. léegi ku ci amul carte d'adhésion rek du na nangul ngay signal mbër ci CNG bi. nga yaakaar ne loolu nekkul règlement de contre entre baabu ak ñi nga xamante ne bii ñooy entourage Modou Lo. mën nañ koo xalaat ndax Babou moom moo njëkkoon nekk manager Modou Lo avant maintenant mu nekk manager Balla Gaye lu mën di xew rek régulariser nañ li li di combat bi. incha allah le 25 décembre. loolu moom taxaw na le 25 décembre Modou Lo ak Ama di leen jëflante incha bu neexee yàlla. te loolu moo nekkoon le plus important. Mhm. kii mooy ménager wala kii mooy ménager loolu amul importance mhm. di leen jaajëfal bu baax loolu moo nekkoon li gën a fës ci bopp xibaar yi mbay looy tàggatooyee. xanaa jaajëfal la di dig daje suñu mbokk internet yi suba jàmm di leen ñaanal bu baax a baax weeru kooru jàmm di daal wi yàlla na ko suñu borom nangu fulandul ñu ko Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. asalaamaaleykum. Ndeye Mbacke di la remercier di remercier Mbaye Babacar di remercier waa Linguère comme d'habitude Yacine Fall équipe bu Leewtoo TV yëpp di leen jox dig daje suba ak jàmm incha allah. di leen remercier di leen jaajëfal bu baax comme ni ko équipe bi waxee di am contentement ci yéen bu baax a baax noonu laay def rek daal di remercier sama équipe technique bi Mansour Fall di kontaan ci moom lool Fama Yacine Fall Bilal bëgg naa ci yéen Bamba. Assane Waalo ak Mbaye Babacar ñu ma fekkuloon damay kontaan ci yéen lool lool lool Adja Nafi sama yaay Ndiaye. nuyu naa la bu baax kewe kontaan ci yow ci noonu nag damay sant di gërëm madame ñaar chéri booy Nia moom ma teral barki Dembo Ndiaye may ma sac de classe boo xamante ne nee naa leen fu ma ko yëkkati rek ñëpp dañuy daal di kontaan borom jaaytaar shop di kontaan ci moom loolu naan ko bég naa ci yow ah chéri boy tëj naa buntu bi maa la gardel foofu nekkal ci jàmm portez-vous bien et à bientôt incha allah.